بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه طيب الرضوان والتمكين أوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يموي لي وقت دندق ينتبه صلى الله عليه وسلم تفن ياسو نو نكون فتح مكة أك يتم يتسس تي ينو أندلين مجوك ينتبه صلى الله عليه وسلم Euh, te mu làmboo li ñuy tuddee xajjatul wadaa euh, ci atum fukkeel ci gàddaay la yonente bi salallahu alayhi wa sallam jóge madina ci weeru weeru diggiw tabaski ci ñaar fukki fan yi weeru diggiw tabaski ci ñaar fukki fan ak juróom ngir defi ajug islaam ajug farata ànd ak mbooloo mu bari noonu lañ continuer ba ak màkka mu aj moom ci jëmmi boppam nit ñi topp ci ginnaawam ngir xam yooni aj ak ni ñu ko war a def ci bisu ñaareelu minan mu def fa benn xutba bu yaatu lool xutba boo xam ne mboolem li doon àq yi doomu aadama dajane ci biir eh, xutba ba gudd na waaye dañ ci da jël aslif rek la ca des ci ak leeral ak i ndolle nag eh, ku dem ci eh, téere boobu ñuy wax arraxiqul maxtuum dana ci gën a dolli ay yaatal ginnaaw bu sante yàlla moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yéen nit ñi ndax xam ngeen weer wi ngeen nekk wan la ndax xam ngeen ci ban bis ngeen nekk ndax xam ngeen ci ban dëkk ngeen nekk ñu ne ko ñu ngi ci bis bu ñu araamal ci dëkk bu ñu araamal di weer wu ñu araamal mu ne leen seeni deret ak seeni alal ak seeni der dafa araam ci yéen ni seen bis bi araame ci seen weer wii ci seen dëkk bi ba ba ngeen di dajeeg seen borom mun leen yéen nit ñi déglu leen lii ma leen di wax te jàpp ko mu ni dama ni bu leen tooñ dama ni bu leen tooñ julit ak alalam daganut ci ludul tayu bakkan ab julit alalam daganut ci ludul tayu bakkan yonte bi ni leen dama ni bu leen dellu mukk sama gannaaw di doon ay yéefar di rayante seytaane moom wóor na ko ne kenn dul ko jaamu fii ci jasiratul arab waaye nag li ko dese mooy yàq diggante yi ragal leen yàlla ci jigéen ragal leen yàlla ci jigéen ñi ndax dafa mel ni ay prisonnier lañ yu nekk ci seen loxo kon na ngeen ragal yàlla ci ñoom dañu nekk ci seen loxo mën seen bopp dara moomuñ ci seen bopp dara amel ngeen leen àq ñoom jigéen ñi waaye yéen itam jigéen ñi amel nañu leen àq àq ji leen jigéen ñi amel nag mooy nañ fexe ba seen kaw lal buñ fa teg ku leen neexul buñ fa buñ fa toogloo mukk nit ku leen neexul buñ digal nit mukk muy dugg seenu néeg te neexu leen bu ngeen demee ba jigéen ji wàcc aw yoon ñàkk jaar ci yoon wi ngeen bëgg na ngeen leen waar bu waaraate bi amul njariñ ngeen gàddaay leen ci taddukaay bu ci loolu amul njariñ ngeen duma leen duma yu mettiwut waaye nag yéen itam ameen ngeen leen war war leen seen wërsëg yéen la war seen koddaay yéen la war ci ni ngeen ko mane ndax bi ngeen leen di jàpp jël da leen a jël ci kóllëre yàlla ci baatub yàlla ngeen leen jële daganal seeni pay ci baatub yàlla kon na ngeen ànd ak ñoom ci aw yiw di leen woddu di leen wërsëgal di leen dundal ku ci am kóllëre gum seq nit na fexe ba matal ko nam ko seq moom bi mu waxee loolu yi daal di tàllal ay loxoom ci asamaan si daal di yàlla xel ba laxtu ala xel ba laxtu ndax jotal na ndax jotal na daal ni ki fekke ci yéen na ko jotuli ki fekkewut ndax bari na koñ jotuli kook mooy gën a jariñu ka ko jot ka ko dégg nit mën naa dégg dara ba noppi kam ko jot li gën ko caa jariñu kon ku dégg rek na na jot li ji ka déggut mun leen yéen nit ñi seen boroom kenn la seen baayit kenn la dama ne ab arab gënewul ab ajam ab ajam ganewul ab arab ku ñuul gënewul ku xonq ku xonq ganewul ku ñuul lu dul ak ragal yàlla ñoom ñëpp ñu ma daal daal cee dolli ni ndax jotal na ñoom ñëpp ñu maase ne ah kay yonente bi yàlla bi jotal na saxaaba yëpp tontu lool foofee waxtaan na fa ci xajatul wadaa moom yonente bi sallallahu alayhi wa ni leen danaa leen wax kan mooy ab jullit ne leen jullit mooy ki nga xam ne jullit yi mucc nañu ci aw làmmiñam akub loxoom ni leen danaa leen wax kan mooy mu'min aji gëm ni leen ki gëm dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne nit ñi wóolu nañu ko ci seeni alal ak seeni bakkan danaa leen wax kan mooy kii gàddaay ki gàddaay dëgg-dëgg mooy ki gàddaay li naqar yàlla ab jullit fa araam ci ab jullit ni seen bisu tey bi araame dereti jullit dafa araam mu di ko mu ne mu ne yàpp jullit dafa araam nga di ko lekk ci ab jëw ab deram dafa araam nga di ko tooñ araam na ci ab jullit muy ba max ab jullit sax la gën a néew ci xeeti tooñaage rek araam na ci diggante jullit ak jullit lépp di yonent bi leeral na ko ci bis boobu di xajjatul wada yàlla bi mu koy wax mbooloo mu bari mi ngi teew mu hmm. ci bis boobu ci la araamale lekk alal ci ay neen ni araam na nit di rey nit ci lu dul ak ak sharia leer leer foofii la libéré jigéen ndax jigéen daanaka jëkk yonente bi di ñëw daanaka ab jaam rek lañ ko jàppe woon arab yi daanaka ab jaam lañ jàppe jigéen waaye yonente bi moo leen libéré ndax leeral gëm leeral ni dañoo am ak ju ju war góor góor ñi ci ñoom muy nañuy ànd ak ñoom ci aw yiw loolu liberté gu leer la gu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox jigéen foofu yonent bi leeral na fi yamoo gi nekk diggante nit ñi ci lu dul ngay xool làkk wa nit ki làkk walla ngay xool couleur ba nit ki mel walla ngay xool xeet ba mbokk mu wax ni ñëpp way yem gënaante gépp mi ngi nekk ci ak ragal yàlla kon loolu doon na loo xam ne ba tey kenn xamu ko woon jëkk islam ndax nit ñi dañ daan ndamu ci aw xeet di xeebante ci kaw ab der di xeebante ci ay alal ak yu kenn xamut ndax ba ci ba ci ba ci mu fakkiron yu jëkk yi ya te mooy ñi ñu tuddee ay philosophie yu jëkk yi ci gënoon a mage sax euh, loolu yi weesu wuñ ko woon dañ daan ndamu ci aw xet ndax ka ñaan wax aflaatoon wax na ni man sant naa yàlla ci ñetti mbir muy bind gi ma bind ma doon doomu aadama te binduma ma doon baaxima ak bind gi ma bind ma doon ma dëkk grek mu bañ maa boole ci weneen xeet wudul woowu ak bind gi ma bind ci jamono yi ki ñuy wax Suqraat ñett yi maa ngi ciy sant yàlla loolu philosophe mag bu ñu wax Aflaatoon moo ko wax. yonente bi bi mu jeexalee aj gi la dellu Madina bi mu demee ba seen Madina daal di kàbbar ñett yoon allahu akbar allahu akbar allahu akbar daal ni laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun ayibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun sadaqa allah wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al ahzaba wahdahu ñaan googi yonent bi bi mu walbatikoo ba seen madina la wax loolu